Pape mhm. di comme ci euh, mouvance élection nag la ñu nekk di xaarande euh, résultat yi naka lay demee ak fan lay mujj mhm. ñenn ñaa ngi jàpp jëm gauche ne ñi ñoo gagné ñeneen ñaa ngi commencé caravane di xam ne ni sax euh, ñoom ñoo daan waaye naka la may laajte rek ci lu ñeel élection yi mooy Papa lan la diine wax ci sàccum élection ayca buñ ca buñ ca buñ ca yeggee Fatima dina la tontu ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax di la jox rendez-vous mardi bii di ñëw ci yeneen actualité judiciaire mi ngi noonu jërëjëf ayca kon ñu jël suñu reportage d'entrée daal di sóobu nag ci grand débat bi régie à vous élection yi coow mën na cee bañ a am ndax euh, jour bi ñu defee élection yi na la wóor na la diggante urne yi ak population bi yëpp benn coow amu fi ci jàmm ak salaam lañu ñu wate kenn ku ne ñibbi këram léegi nag bu dara desul lu may résultat yi yi kenn ku ci nekk ñi la woteel fi nga am ak fi nga ñàkk biir yooyu yëpp dèjà fi ne population bi xam nañ ko. gis nañ coow li ci réew mi nu mu mel wax dëgg yàlla ku nekk yaa ngi xëcc sa côté naan yaa gañe bennoo ak yeewi askan wi. mais tamit coow li moom wax dëgg yàlla waroon naa bañ a am quoi. élection yi moom gars yi dañuy wax rek ñii naan maa gañe ñii naan moo gañe gañewu ma léegi daal pour mu leer nañ bàyyi ba résultat yi génn. kenn ku ci ne boo xëccee jëmee ci sa côté tamit na la wóor wóor yàlla li juge yi ñoo ci des juge yi nañ papier yi yoon. comme résultat yi génnagul ñun ñëpp nañ dégloo waaw lu ñu am yaakaar moom yow askan bi moo gañe. bu gañe dee am moom maam Ablaye Wade mooy gañe ndax fi ñu ne nii PDS moo jël tendance bi. fi ñu toll nii moo fi teg tànk waaw incha allah bu neexee yàlla lépp dina leer ci kanam. dañoo rëccu rek luñ ciy duggee ci ay yu kenn xamul mais Ablaye Wade moom moo fi teg tànk macha allah suñu maam jooju yàlla na fi yàgg te wér. ku nekk yaa ngi xëcc sa côté naan yaa gañe bennoo ak yewi askan wi mais tamit cool yi moom wax dëgg yàlla waroon naa bañ a am kowaa parce que comme résultat yi génnagul ñun ñëpp nañ dégloo. waaw ñun moom ci terrain bi lañ nekk xam nga mooy loolu voté nañ suñu. candidat def nañ li ñu war a def lépp mais daal jàpp nañu daal Yewwi Ousmane songo moo gagné. mooy euh, xalaatu askan wi baatu askan wi ci élection yi nga xamante ni euh, jóge nañ ko moo tax may laaj suñu invité lan la xalaat ci li nga xamante ni moom mooy kàddu yi sénégalais yi yëkkati maanaam c'est première impression général par rapport ak structure dimanche bi. waaw mooy baax na. Mhm. baax na noonu la aywa. waaw noonu la ni mu doxee déroulement bi nag. nga ko waaw waaw baax na baax na macha allah. jàpp nga ne amul benn ko ak yu ni mel. allah lu ne rek mën na fee gën mais baax na. d' kon Ouleye ma bàyyi la nga ñëw ci première question. léegi ñu gis ne euh, nguur gi Benno Bokk Yaakaar dañoo perte ay élections fépp fi nga xamante nekk ñu ngi fay euh, kër euh, chef religieux yi fa lañ nekk. fu si mel ni Touba dafa perte fu si mel ni Tivaouane dañ ko faa fu si mel ni Thiénaba Yoff Layène fu si mel ni Medina Baye foofu yëpp ñu gis ne Benno Bokk Yaakaar dafa perte te foofu ay site religieux la est ce que du dem ni dañoo dem ba dañoo nu yi yi ñàkk yaakaar ci moom lu waral rupture de confiance boobu entre nguur gi ak euh, ñi ñi nekk les chefs religieux. kooku classement fallacieux la quoi mais xam nga sëriñ si waxuñ ne bu ñu wateel diw waxuñ ne nañu wateel diw. Mhm. la xew seen biir kër même seen biir jabar ak doom sax mënuñ ko maîtriser à cent pour cent. Mhm. loolu classement fallacieux la rek. parce que dafa am Sénégal yoo xam ne en fait ñoom comprendre ñu door nañ ko wax su fekkee woon ne sëriñ si ñoo daje. Mhm. ne dañoo contre état bi bu leen fi kenn wateel. Mhm. boobaa dafay am relation de cause à effet. Mhm. mais bu dee dañoo seetlu ci biir la mi ngi mel ni da nga ne diw kat perte na euh, bureau de vote bi mu doon wote. mën na ko perte de gagner département ba wala kii ba. yooyu ay kii la ñuy avancé yoo xam ne signifiéwul dara ko lan nga gis comme sëriñ yi nga xam ne léegi ils se donnent à cœur joie di wax seeni i taalibe pour ñu votel benn parti comme ni ko Kara defee euh, sëñ Modou Kara ne nañu votel taalibe est-ce que gis nga ne chef religieux war na dugg ci ci mbiru euh, politique. sëriñ waaw non xam nga sëriñ ak politique loolu ci euh, après révolution 1889 ci la amee ñu naan séparation de. de l'État et de l'Église mhm. mais ci wàllu lislaam loolu amu ci mhm. parce que ki nga xam ne moom mooy jiite julli gi muy yonent bi mhm. mooy aussi le chef politique mooy le chef de l'État mooy l'exécutif mooy lépp un peu chef de tout chef des armées chef de la justice loolu amul ci côté diine l'islam kon kon yow daal d' accord ak ñi nga xam ni niñ ko analyser dañoo gis ni sëriñ si dañoo dummuyu wan ginnaaw ñi nga xamante ñoom ñooy nguur gi d' accord ak xam nga xam man naa nekk mais xàmmee moo gën a am solo mhm. bu nekkoon ne sëriñ si dañoo déyante ne ñun fii ñu nekk bu fi kenn wateel kenn wala bu fi kenn wateel opposition wala bu kenn wateel euh, pouvoir waaw bu boobaa loolu dana am benn causalité bu ñu xam mais su fekkee ne c'est un hasard boo xam ne buñ dañ ko war a euh, étudier door koy qualifier buñ tëbee qualifier ko rek loola euh, nit ko am discernement du ca du ca dem quoi. Mm-hmm. waaw balaa ñoo jóge ci sujet bi ah. waaw man de euh, d'accord ma ak sama kilifa Ahmed Khalifa. Mm-hmm. bu ne amul benn signification que Macky pratiquement perte foyer religieux yëpp pour man loolu am na lu muy tekki. Mm-hmm. parce que boo demee département Mbacké. Kaolack dina bàyyi daf ko perte Tivaouane Yoff ainsi de loolu am na message bu mu bëgg a dama woo sama benn xarit El Hadj Fallou Xuma journaliste ci département Mbacké ma ne ko Macky Sall lan la def waa Mbacké parce que foog naa ne bu dee sur le plan matériel ak ay réalisation rek xëy na def na dara foofu hôpital de niveau 3 autoroute Ila Touba yu bëree bëri bari mais teewut depuis 2012 ba léegi mosu ko gañe bii nag gën a ñëw euh, doyatiwaat donc am na loo xamante ne de delà euh, de ñoom li ñuy campagner sur le plan matériel di wax ay réalisations ainsi de suite y a un bilan immatériel du président Macky Sall boo xamante ne pour man à chaque fois moom moo koy euh, poser gën a poser préjudice ci élection parce que bu ñu nee assemblée nationale la ñu war a dem xam nga foofu en vérité débat bi warul doon. Euh, lu mel ni élection présidentielle parce que man dama ko gis ci mhm. campagne bi ñu bari ñoo xamante ne mhm. pour man damay naan ñii xanaa élection présidentielle lañ jëm sax mhm. mais parce que assemblée dafa am taxawaay bu mu war a mën a am ci euh, réew alors que rupture de confiance am diggante <coughs> assemblée bi ak peuple bi rupture de confiance boobu nag bi mu amee li nga xamante ne daf fi bëggoon a jàll te li ci gënoon a fës moom mooy euh, demande sociale bi loi criminalisant homosexualité par exemple nga xamante ne Sénégal ñu bëri dañ ko demandé woon Euh, assemblée nationale bi euh, gàntal ko. mais loolu warul mën a ñàkk impact ci euh, gis-gis religieux religieux maanaam tey gis naa ci Medina Baye surtout. Mhm. ku mel ni MC Niass doon def ay live di wan. ñi nga xamante ne ñooy waa coalition Benno Bokk Yaakaar naka la ñuy ñëwee ba ci euh, à quelques mètres de jumaa ji di def foofu ay meeting di tëgg ak euh, ainsi de suite mm-hmm. mais loolu noonu tamit c'était au niveau de Yoff ba juróon ci sax ay euh, débat ba waa yeewi askan wi mujj gàntal lu bëri ci seen i ay manifestations yu ñu waroon a def mm-hmm. donc loolu noonu nag daf ci fekkul waa Benno Bokk Yaakaar mm-hmm. loolu moom moo tax ñoom sur le plan ñi nekk ci foyer religieux yi sanctionné leen bu baax a baax a baax Macky Sall def na foog naa ci foyer religieux defal leen ay genre site yoo xamante ne pour seen màggal yeeg gàmmu yeeg yooyu noonu ainsi de suite donc kon foog naa ne amul problème directement ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy les xalif généraux ak ñi ngànk euh, tarixa yi mhm. mais am na problème ak population yi nga xamante ni ñi ngi yeewu foofu parce que chaque élection surtout au niveau du département de Mbacké ñu sanctionné ko l'aspect religieux la vision spirituelle temporelle conjonction boobu noonu foog naa ne le régime de Macky Sall n'a pas réussi un point donc foofu am na beneen laaj bu bu xam ne mënees na ko foo génnee. Mm-hmm. Euh, gox yi nga xamante nguur gi ñàkk nañ ko lan nga jàpp ni peut moo ñu ko yóbba ndax par exemple joxe na benn exemple ndax loolu gis nga ni lu mel ni par exemple ànd sàmm jikko yi seen mm-hmm. sàkkuteefu criminalisation homosexualité. Mm-hmm. te nguur gi fekkuñu leen ndax loolu jàpp nga ni point la boo xamante ne bi sanctionné nañ ci nguur gi ci localité yi nga xam ne ñàkk nañ ko. man le fait de diir que c'est abject mais c'est de le dire d'une manière ou d'une autre manière formulation la du problème fond waxuñu ne loolukat lu baax la bu fi kenn wax ne lu bon la dañoo ne fekkoon na ñu bonal ko ba pare ngeen ne nañ ko gën a bonal ñu ne liñ ko bonal doy na su fekkee ne ni ma ko déggee génnoon la waaye ñoom si sàmm jikko yi dañoo ne euh, waxuñu criminalisation de l'homosexualité si ci loi bi dañoo bind ne euh, acte contre nature la ñu criminaliser mais pas l'homosexualité voilà dañoo délit la acte contre nature mais ñoom dañoo bëggoon ci texte yi ñu indi ci ay soppite daal di condamner li nga xamante ne moom mooy homosexualité génne ak criminal ci délit acte contre nature réew moo xam ne amul peine de mort mhm. criminalisation amul un sens parce que léegi dañ ko doon tëj ñeenti at nañ ko tëj euh, criminel mooy bu nekkee juróomi at loolu rek la ay weer de plus ou at de plus ou de moins mais fond problème bi mooy mënoo criminaliser foo xam ne duñ tëddoon ni keneen di ko dañ koy tëj rek de toute façon bu dee délit fii lay yem euh, am na délit yoo xam ne euh, fañ yem am na crime yoo xam ne sax àggu ca mais docteur yow am nga parti politique ah bien sûr seen seen taxawaay ci législative yi lan la woon parti bi. waaw ñu ñu ngi ci biir benn. ah yéen ngi benn ah d'accord. ok Pape man. Euh, ñu ngi ci biir benn sax damay dellu ci kii rek. Mhm. Mhm, waaw parce que dañu cee recevoir fii nii professeur. Mhm. Euh, Aboubacar euh, Samba. waaw mooy président kii mooy mooy moo andi fi fii texte bi. li ñu leen li ñu ko wax fii nii. li ñu ko wax fii nii li tax assemblée nationale rejeté seen texte bi ñoom texte bi ñu bind moo baax. Ah, ba Mboup Babacar Mboup waaw fii la toogoon. Mhm. bi ñu liiree texte bi man wan ma ko dama ko ne texte bi ngeen bind baaxul. looloo tax waa assemblée nationale ne leen li ngeen ñu andil am na fi pare. Mhm. benn parce que dangeen ngeen a demandé criminalisation bu fekkente ne dañu jël na bi infraction crime la. Mhm. daan bi bu tuutee ba tuuti dix an la war a commencé. dem ba perpétuité. yéen da ngeen a laaj cinq ans. te cinq ans yi ngeen laaj mu ngi nekk ci intervalle lu délit mooy li li li li li Moussa Sow doon wax léegi nii. beneen bi ci topp da ngeen a demandé euh, pour euh, euh, prescription bi ñu def ko sept ans boobu maa ngi téye kayit bi. sept ans ngeen bind fii nii mun a ma ne ko ab crime kenn du ko prescrire à sept ans. Mm-hmm. donc yéen texte bi ngeen bind mu ne ma pourtant un grand juriste moo ko bindee tout ça maa ngi leen d'accord mun na nekk un grand juriste mais texte bi ngeen bind nii. am na assemblée nationale bu ngeen changé woon texte bi il aurait suffi tout simplement ngeen ne dañoo bëgg képp ku ñu jàpp ci wàllu ngóor jigéen ñu tëj ko fukki at ak juróom te bu ñu ko commencé wut fekk deful fukki at mbaalu ko ëpp du ñu ko bàyyi su boobaa dinañu xam ne yéen génn ngeen ci champ délictuel bi pour dugg maintenant ci champ criminel bi yéen da ngeen a wax criminalisation ba noppi andi un texte bu nga xamante ne c'est un texte délictuel euh, délictuel loolu rek moom mooy seen problème ak nit ñi mais bu fekkente ne ŋàññ bi la ak mm. dàq bi ñun ñi toog fii nii yëpp gëm naa ne sénégalais yëpp ñoo bokk benn position. par rapport maanaam dafa bëri euh, amateurisme. Mhm. parce que sëñ Sow mi toog léegi. bu jógoon léegi jël grand bu bu soxna si sol ko du loolu mun am nañu ko mën a tuddee góor jigéen mais est-ce que tax na mu nekk ko. mais nag loolu ñoom. c'est que loo xam ne di mm. définiruñ ko dañ ko bàyyi muy dem rek ku nekk déggoo ku la neexee. Mm-hmm. loolu nekkul loo xam ne lu sérieux la lu ñu imposer mbooloo di ko bind ci ay loi di ko wote définition bi mooy lu jiitu dégg nga définition mooy lu jiitu su fekkee ne sàcc booy la ne ba ne sàcc ngelaw nga dee nag muy upp ngelaw li nga doon upp ñëw ci moom ñu daal di ne kon kat dafa sàcc ngelawal jàmbur déedéet il faut ñu définir lan mooy sàcc buñ ne baatam ngóor jigéen war nañoo xam mooy lan facilement nit ñi dañu ne ko efféminé ci la bokk est-ce que ko efféminé mooy góor jigéen est-ce que même ko excentrique te yooyu yëpp dafa am te dañ ko dañ ko ci nirale dafa bari amalgame yu mu yóbbaale mbir yi lu ñuy condamné nit warul am équivoque rey na dee na amul wax waaye rey na waaja waa ñu ne ana waa ji ne maa ngi nii dañ ko ne waa euh, comme yaa ko rek kaay ñu jàpp la non il faut que yëf yi ñu définir ko mu leer. d'accord alors xam naa su ma su ma su ma ñëwaatee ci ulay bala nga may ma balaa may balaa ma lay bàyyi nga indiwaat beneen laaj. Euh, laaju sànq bi bu fekkente ni dama ko reformer li damay laaj. Hmm? lan nga gis ni ci réew mi doxul ba tax askan wi sanctionné foofu ñuy jiite fan nga gis ci ci réew mi daal ci doxalin ni ñu ko gouverner jar naa jubbanti fi doxul ci réew mi fu jar a jubbanti. cest à nit ñi bokkuñ lu leen di wateloo. Hmm. yéen ñi nga xam ne mbedd mi wala fajiri nekk. li ëpp ci nga bi ñuy jaay ci mbedd bi néew na ci dul exception koo ci xam ne suba ba jant bi soo da nga jaay trois mille francs te amu ci kenn koo xam ne sa lekk ak sa naan ak sa dem ak sa ñëw du la ñëw au moins deux mille francs deux mille cinq cent mais ñu toll foofu ñooñu duñ woteel jamais borom taaxu kaw du lu leen kenn def lu leen jamono def lu leen société def nit ko wax ne soo ba ñeent soo mi ngi ci naaj wi di tawtee di kii mais ñooñu duñ duñ mën a seen seen xol tàlliwul il faut que dana exprimer seen mer d'une manière ou d'une waaw lu bokk nag ay ay ak ay raisons politiques mais man li may wax mooy bu ñu demee ba dugg ci affaire discussion bi. Mm-hmm. xëy na foofu la ñuy mën a dem ci fond du problème. parce que lii élection législative la dëkk yi ngeen wax yépp ne dañoo wote. Euh, contre Macky Sall ñoom ñëpp moom la ñu wateel ci présidentielles yi il y a euh, juste en deux dix-neuf dëkk yooyu yëpp il a gagné. mais pas Touba. il a gagné partout. non maanaam il a il a il a gagné dans des bureaux de vote à Touba. Mm-hmm. dans Taïba Cekkeen et c'est de suite et cetera non Euh, c'est vrai balaa balaa maa ñëw si question Pape dafa jot ñu leeral parce que sàmm and euh, kii ànd sàmm ji koy nekkuñu fi parce que mu ngi wax euh, ay thèmes yoo xamante ne daf ko waroon leeral ci seen texte si criminaliser homosexualité je pense que ne ñu fi toogee wax nañ ko te am na yeneen débat yoo xam ne seetaan nañ ci place suñ toog defe naa seen texte yi ils l'ont bien écrit et chaque fois dañ koy bëgg di leeral bañ na ba dañoo génne lu ñuy moo efféminé kon mooy jigéen jigéen bañ dañu ne mm-hmm. kii